suñu commune bi da fait favor, favor, bu bu tara tara tara tar décentralisation da consacré neuf compétences transférées neuf compétences transférées yoyu amul benn benn benn bu ci commune bi j'ai fait presque la totalité des 19 villages de la commune mais Amoul Ben, Ben, village bu xamante mairie bi commune bi réagir na fa dara alors que chaque année ils ont un ils ont un budget de presque 1 milliard Je laaj leen nag xaalis boobu fan lay dugg khas boobu fa lay jaar khas boobu est-ce que loxo yi ko yi ko yor est-ce que loxo yu set la am jour. ma yóbbu sama jarbaat euh, dispensaire u Sindia fekk euh, nawet la tombé bi ma dugg see zeng bi dafa nu mu tuuti dafa fokkoon ak enseigne ga benn sage-femme moo jëloon paan tàkk ci suuf comme ça ndox mi ba ne wala ngaan mu nekk image bu xamante ne dafa daw sama yaram parce que bërëbu fojukaay daa war nekk bërëb bu xamante ne daa sell kenn waru fa jële une feebar au contraire boo feebaree boo ñëwee dañ la war a faj la santé c'est une compétence transférée aux communes la commune n'a rien fait dans ce domaine-là je suis désolé de le dire mais c'est la triste c'est la triste réalité su ma weesoo foofu ma au niveau de l'éducation dugg naa ci ay dans la commune di gis fa ay abris provisoires à mon avis c'est inadmissible une commune qui est à la lisière de Dakar les proche de Dakar di am ay nu mu ay abri provisoire loolu vraiment feneen laa ko séentoon ay Kédougou ay Saraya ay Fongolembi mais séntu mu koon fii Sindia te inshallah Inch'Allah, nous prenons un engagement ferme que bu ñu yàlla joxe maire bi inshallah ces abris provisoires là on va les résoudre maximum dans un délai de 2 à 3 ans. suñu xoolee suñu commune bi à à vingt et siècle ñu nekk à tout près de l'aéroport Blaise Diagne ñu gis ne dañu am ay feebar yoo xamante c'est des maladies yo xamante euh, c'est très grave waru won meuna nek suñu monsieur le maire wax dako légui la santé fièvre la fi suma ma euh, firndé ci sinja village par exemple on n'a pas des salles de euh, d'hospitalisation yu yu yu mat da ngay dem nga gis ku ku war a hospitaliser mu nek ci ay conditions yo xamantene ce n'est pas du tout bien alors que lolu japp nañ ne lolu waru won meuna nek ci fi nga xamantene ne fa lañu tollu ci monde bi actuellement so demee ci zone par exemple Djorgui da nga fay fekk ay villages yo xamantene amuñu cantine bu mën fajj gom jigéen ñi suñuy matu dañuy sonu pour génn ci village yoyu mën dem am accès ci hôpital yu bax mën accoucher accoucher ni normal lan moo tax ñu botu ci ginnaaw Seybatou parce que il a les capacités

mouvement baa ngi une déclaration di wax ne ñu ngi toute la jeunesse de la commune di leen wax jeunesse commune boo gis développement wu commune ba ñoom dañ ci am part de responsabilité bu am solo